c'est que problème bi mooy il faut yenn góor ñi bàyyi di toog kii rek jigéen ñi xam nga jabar mayuñu la ko pour nga def ko jaam jabar mayuñu la ko pour nga koy torturer jabar mayuñu la ko pour nga koy toroxal jigéen su bàyyee góor yëpp ni yow la da ko war a jàppale jigéen da ko war a toppatoo toppatoo ba nga xam ni su ko ndeyam ak baayam ñëwee seet ah duñu rus yow doo rus moom du rus am na jigéen ñoo xam ne dañoo rusa sax dem seen kër ndey ak seen kër bàyyi ndax niñ leen toroxale da ngay jël jigéen ah bi koy takk mi ngi rafet a rafet a rafet a rafet góor ñëpp bëgg ko mais su koy demee kër jëkkëram ba def fa un an deux su jéggee ndox doo dootoo ko naan te genre toroxal yi yooyu yëpp góor ñi ñoo koy teg jigéen ñi parents yi tamit nañuy xool ñi ñuy jox seen doom yi doom soo koy jël di ko may nit da ngay xool ki nga koy may kan jigen ni tamit xol fi ñu dugg fan la belle famille yi tamit ñu xol bu baax di jappalé sen jabaru sen jabaru doom di jappalé sen jabaru frère yi waye gis sa frère di door sa jabaram di toroxal jabaram du ko topato yow ci boppam nga nga nga ngay ngay faral sa frère lool du yëfi nit nit ku baax day def yëfi nit goor gu la gëna avancer moy goor gi gëna gëna tak topato jabaram wala goor gi la tak topato yaayam góor leen ci jigéen ñi góor gu la gën a dellu ginnaaw mooy góor gi nga xam ne moo dàq toroxal euh, nu mu tuddati toroxal jabaram beneen bi damay gis paa yenn paa yi naan jël sa jabar rek mel ni jël doom rek mel ni ku koy saraxe doom kenn du ko saraxe doom maanaam euh, richesse la doom dafa neex nga jur ko am ñoo xam ne dund nañu ba dee amuñu doom yàlla may la doom ji jigéen soo koy may jëkkër na xool nit ku baax nit ku sell nit ku mën a toppatoo jigéen nga jox ko ko soo ko ko joxee di nga ci am la nga bëgg may soo jëlee sa doom jox ko benn ndoy baan boo xam ni ñu ngi noonu mu koy dóor di ko saaga du ko toppatoo fii ak un an da xëy xëy ñu la deena nga dem suuli ko mu dem takk keneen jàppaat gi loolu amul njariñ ko jigéen ñi ci boppam suñuy wujjee nañuy jàppalante seen biir loolu tax souvent ma naan femme yàq femme. c'est pas parce que sa jëkkër mi ngi dóor sa wujju yow danga nga war a kontaan c'est pas parce que sa jëkkër mi ngi abandonné sa wujju yow da nga war a kontaan loolu waroo cee kontaan ndax yow soo ci kontaan sa bës a ngi ñëw parce que jigéen góor ñi moom fu nooy rek la ñuy wax il faut faire très attention ci góor ñi góor laa xam naa baax li ma leen wax mais góor gu ci moytuwul toroxal jigéen bala ngaa dee di nga torox jaa ngeen jëf